asalaamaaleykum bokki Sénégal bokki àdduna bokki diaspora bi man la Mbaye Sapar Sapar kone xam na ma parce que réew mi dafa am ak réero am ak pëccëxoo kone aw sa yoonu bopp te man nag dama bokk ci candidat yi nga xam ne damay damay damay campagne damay laaj réew mi deux 2024 dama bokk ci ñi war laaj réew mi non parce que réew mi dafa jaxasoo te bokk naa ci ñi nga xam ni ñi ngi leen di bàyyi xel ci réew mi kon nag war na maa laaj réew mi teg ko ci yoon ah, non duma bàyyi réew mi mu yàqu ci noonu dafa bari falax falax jii ma gis dafa bari surtout surtout ñii ñuy wax ay communicateur lan xaw ma ñii ñuy wax ay communicateur bu ma jëlee réew mi ñëpp laay def ci kaso bi. moo Modou Mbaye Touba am na ku naan moo Mbaye Touba xaw ma ak ak Sadda Ñang xaw ma non ab tëjam man naa un mois parce que moom xaw naa régler tuuti mais ñi ci des danaa leen tëj six mois ba sept mois ba régler li may régler parce que du ma mën a ànd ak ñoom ci falax-falax ji fu ne ay jaar fa non de non danan danan ñi ma bëgg danan ma woteel hmm. parce que ñi duma leen bàyyi noonu daal parce que fi mu ne bu ma doon laaj réew mi mën na a wax lu ko yàq mais yàlla dogalee ma jot réew mi danaa leen denc six mois ba def sama gouvernement ba noppi ba pare danaa leen wutal ay tool géw géwal yi ñoom Saad ma Saddaak Modou Mbaye Toubac noo dañ koy jéem a jàng noorak ak nawet danañ ko bay bu soobee suñu borom for force noor nawet premier ministre moom kan la ak ku régler ku régler ku ko war a def ku regle ku ma ko war a def laa gisut non nogum régler wut no nogum régler wut ba moo koy defee président nogum moom danaa ko jox yaakaar naa tonnikat yi kii danaa fexe ba mu jàng dawal camion pour ñuy baleeg yooyu mu di leen yóbbu. ab sëb bu laa doon taal man taaluma non ab sëb bu laa doon taal borom laa mu ñu fa jaar naan libeere Sonko ma ne ko eh ma fonto man ab sëb bu laay taal bu ma dugal man taaluma jàmm ci laay dox. non man man man moom kenn du ma maase de maasaas def ci réew mi moom sama yónneew ci maasaas maasaas a taal réew mi. maasaas xam nga ne ak jaxasoo am na ci maasaas bu demee ba sëñ bi ñu ci sànnante xeer ak lu ne réew mi yàqu na.